اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم الله أكبر kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Cheikh Mouhamadul Mountakha yàgg njabootu sëñ Tuubaa gi sa mbokki bopp yi ak mboolem kilifa yi nga xam ne tey jii ci lislaam bépp def nañ la ngay niitukaay boo xam ne di jant boo xam ne dafa mel ni lu leen mës a lu ñu mës a yéene ci lislaam seen xel dal na ci yow moo tax sax suñu bis bii àdduna sépp wuyu si nañu këru diine yi ay délégation yu bàyyi ko Tiwaawan délégation bàyyi ko délégation bàyyeekoo na Léona Niassène délégation bàyyeekoo na ci kër diine yu bëri yoo xam ne fi ñu toll nii sax jafe na moom ma di ko lim ndax ba bi ñuy ñëw di toog am na ñoo xam ne ñu ngi agsi réew mi boo xoolee njiital réew mi ki ko fi nekkal ci région bi muy gouverneur ba ñu gisee ne lu toll nii mbooloo bi di fi war nañ fee daje préfet sous-préfet ak chef de service yëpp ànd nañu ñun xool luy yéwénal yëf yi kon Mbàkke war nañ la koo seereel sa mbokki bopp yii nag moom yàlla dafa dogal ni sa xol seddee ci ñoom ba nga seere ko ñëpp di ko dégg ñun itam ñun ñëpp ngi fi kenn ku ne ci ñoom ñëw nga teew nga wala teewalees na la fi loolu ñoo la koy seereel di ñaan yàlla suñu borom mu yoru pay ci sa barke ci sa daraja mu xëpp leen pay koo xam ne dina kawe seen njort àdduna ak alaaxira li nga xam ne nag ay kàddu lañuy ñuy ubbi ñun dañoo xam ne l'islam bépp nga yor raayaam toog tey ji di liggéeyal sëñ Tuubaa moo tax ñu bëgg a ubbee rek ay kàddu yoo xam ne dañ koy jox koo xam ne Burkina Faso la jóge te dara indiwu ko lu dul ziar bi turu ñuy jóge bitim réew ñëpp lay waxal te loolu itam xool nañ ko ba kàddu yi sax guddul waaye la muy ëmb gis nañ ne mun te ñàkk ndax tey jii mbirum sëñ tubaa dee su ko xatal ndax daan nañ dégg mag ñi naan murid dëgg du dégg wolof kon loolu ab soññ rek lañ ko jàppee boo xam ne bu ñu góorgóorluwul tey jii ni lislaam toll te boo demee Indonésie dem Pakistan dem réew yooyu nga xam ne du ñuy arab yeggale nañu lislaam foo xam ne ah ku doonu arab it di nga góorgóorlu xam ne liggéey bi farlu rek la kon ñun suñ digganteeg sëñ Tuubaa loolu soññ la boo xam ne am nañ ko ci ndax moom li ko indi ci mu xamanteeg daara Hizbut Tarqiyyah dafa am koo xam ne Burkina la nekk xetuk sëñ Tuubaa xeeñ ko te ci nan la amee mooy Serigne Saliou Mbacke dafa digaloon sëñ Atou mii mu am invitation bu ñu ko invité woon Amérique mu jox ko ci ndigal mu dem ba mu demee ñu xamante fa foofee foofee mu mel ni moom dafa bëgg rek bëggante am ci ngir yàlla sëñ Atou nag daggal ko billet mu ñëw fii Sénégal bi mu dikkee Touba loolu nag cofeel googu tàggootul ak moom ba nag lu mu am ak ku mu xam dina la indi fii kii nag bi mu xasee dikk fii gis xasaay di sëñ Touba yi gis téere sëñ Touba yi boobee ba tey day def ay conférence yoo xam ne ay junniy junniy nit ñooy nekk Burkina te ci sëñ Touba rek lay wax te làkk ba muy làkk ñun ñii bu ñu fa teewoon mën nañ ko bañ a xam ndax mën naa doon làkk bu mel ni moore wala mu doon xanaa arab mu tane ngir ñu mën koo xam kon dañ koy jox rek mu jottali ay kaddu ñu door a ñëw ci li nga xam ne mooy waa Hizbut Tarqiyyah kaddu yi ñu la bëgg a jottali Mbacke